bilay boo demee bay tànn waay nga la waay Dakar People man Jibril Diop sumay waayoo damay waayoo ki mat waay bu sin buri ba sin Diop buri ma sambay bay salaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar People ñu leen di di leen jaajëfal kii di Franck Blanco mi nga xam ne mooy avocat Ousmane Sonko Frank Branco nag moom xeexam du jeex ginnaaw bu mu jàkkaarloog Macky Sall démb publier na na ci piblier na ci page yu Facebook ay photo yoo xam ne nee na vidéo yi mi ngi ko yore jëm ci soxna njiitu réew mi xamuñu dëgg la wala du dëgg moom moo ñu mun a leeralal lan la te bu loolu bu amee muy lu musta am Sénégal Frank nag nee na moom ku ko laaj laaj ki di président France mi nga xam ni bi mu jàkkaarloog moom da ciy dem ba jeex muy du doy mu mel ne Ousmane Sonko avocat bi mu jël avocat bu doy la boo xam ne nag moom xeexam du jeex mukk ñu ngi déglu di seetaan lan lañuy indil prank nag ginnaaw biñ ko dàqee ci avocat yu Ousmane Sonko jëloon pour ñu layal ko ba léegi toogul mu ngi toog ci Facebook bi di xool di wax li xew ci biir Sénégal ñu ngi koy déglu nag ñu ngi koy déglu bu baax a baax ñu ngi leen jox dig daje ci yeneen xibaar fi seen chaîne Dakar People. bilay boo demee bay tànn waay nga la tànnal ki mag waay Dakar People man Djibril Diop su may waayoo damay waayoo ki mag waay bu sin buri baasin Diop buri ma sambay bay